mbokku téléspectateurs yi mbokku internet bi ñu seetaan sur la TMS TV ñuy am mbégte ak kontaante bi ànd ak yéen ci seen émission Petit Matin euh, di nuyu euh, le PDG de TMS TV El Hadj Thierno Moulay Sow mais thème bi ñu jël tey dafa nekk un thème d'actualité muy affaire location maanaam louer ma ànd ci nag ak euh, Soxna Ngone kenn du ko présenté nekk ci personnel de communication bu kër gi Euh, Ngoné nga nuyoo ak internet yi lay seetaan. waa mbokk internet yi maa ngi nuyu ñëpp. Mhm. Euh, ci seen tur ak seen sant waaye duma fàtte ki nga xam ne mooy borom kër gi mu Thierno Moule Sow kuñ fa kon di ko nuyu di nuyu ki nga xam ne mooy yaayam mu sell bi Maria ajaratu Mariama Camara mu sell bi di ko nuyu di ko ziar du ko jox wàcc waayam di nuyu réalisateur bi ak ñi nga xam ne mooy Pape Diagne suñu caméraman di la nuyu doyen ak suñu invité bi tey. jërëjëf suñu invité bi kan la. mooy Ablaye mbay nekk maanaam bi yëngu ci affaire courtage. Mm-hmm. Hmm, ñu nga xam ne ni boo soxlaa kër pour louer wala sax pour jënd ñoom ngay dem wax leen seen soxla ma bàyyi ko nag moom mu nuyu ak euh, maanaam ñi koy seetaan TMS TV. Ablaye waaw ah, jërëjëf Aziz. d'abord dama leen di remercier si invité bi ngeen ma invité. Hmm. pour ñu wax ci affaire location yi parce que ñu bari ñu ngi naan courtier yi courtier yi client yi lu fu ne ñu ñu façon yére bu ne ñu ñu koy solal. kon donc maa ngi leen di remercier ndax moom profité mun ci waxaale suñu bopp. ah d'accord donc <laughs> di la remercier yow Aziz Diagne ak caméraman yi ak. jënna jëla toog <laughs> d'accord kon nag euh, dégg ngeen ni mu nuyoo defe naa ne. Euh, émission bi nar na ala daw me waaw loolu moom njort naa ko euh, d'abord Ngoné pourquoi yéen boo leen soxlaa maanaam néegu luyaas wala appartement doo leen dugg ci kër yi di laajte euh, ngeen da ngeen dem ci ci ci courtier yi lu tax loolu. waaw grand Aziz parce que boo xoolee ne bu njëkk ba. Hmm. su buñ daan wax naan dañuy ut location mooy jamono bu ne ak la tey xew. da nga hmm. daan gis da nga daan génn. di dox di wër porte à dugg ay koñ ndax amul néegu luyaas wala amul fii amul fii kër ndax jamono yooyu sa appartement bawul léegi nag dafa dem ba jamono dafa changé hmm. comme courtage bi courtier yi ñoom dañuy dajaloo secteur boo dugg hmm. am na foo xam ne koñ bu nekk rek koñ bu nekk am na benn secteur boo xam ne comme fenn foo xam ne mooy gën a siiw fa la courtier di toog kon hmm. loolu moo gën a yombal que ngay wër di laajte ah, da ngay dem rek boo demee nga laaj leen parce que borom kër yi tamit bu ñu amee chambre dañuy dem ci ñooñu wax leen ah, loolu moo gën a yomb ah d'accord borom kër yi mhm. nee na borom kër yi ñoo leen di dénk kër yi mhm. wala yéen it da ngeen dégg rek ne am na fuy kër gi maanaam mu benn kër ñu mu pare nii rek ngeen ne ngeen ne ngeen ne dañ ko dañ moom ñun duñ ko def ah. man moom duma ko def waaw d' accord du ma wër di xool nekk avant fu appartement du ma def. d' léegi kër yi nu ñu leen koy signalé maanaam noonu leen koy yëgee dañ leen koy. dénk wax leen ko wala dañ kër yi seen bopp. ñoo ñëw wax ñu par téléphone la ñuy ooyee wax ñu. dëgg la parce que dañoo xamante ñun yàgg nañu liggéey yàgg nañu jox seen kër. Hmm. donc doo indee kenn ci appartement bu demee ba yàlla defar affaire am mu war a dem kër boppam borom kër gi dina la woon ne la sa waa ji kat day dem keneen koo fi donc defe naa loolu leer na mais dama dégg léegi nga ne daf lay téléphoné maanaam kër gu nit ku defar këram ba pare mu bees mu woola ne la am naa nekk buy luyee loolu moo loolu nga wax te du loolu am na te ci liggéey waaw surtout dañ dañuy liggéey ak agence immobilière yi parce que saa ñun agence yi duñ dox waaw mais agence immobilière yi euh, maanaam ñoom boo xoolee dañu dénk kër yi wala appartement yi mais Ablaye damay ñëwaat ci li mu wax ne ma dañuy téléphoné. wax leen ne leen sama kër kat am na néeg. mais néeg yooyu yéen avant que ngeen koy déclarer est-ce que di ngeen dem vérifier ko d'abord. waaw mais parce que day fekk yow yàgg nga ko joxe. déggoo ma ne la buy dem dañ la naan daf lay oo ne sa waajaa ngay dem yow xam nga foofu nu mu mel. waaw encore bu nit bu dëkkee bay dem état de lieu de sorti dafa am. dañuy réfectionné waat defaraat lépp change de selleri yi mhm. yow boo ñëwee da ngay boo apprécier rek ñu ne la waajaa ngi borom kër gaa ngi nii yaa ngi nii waxtaan leen ñun nii la ñuy def soo leen déggoo xayrun boo leen déggoowul aussi léegi borom kër gi wax la moom ñaata lay luyee néeg bi wala appartement bi moom mooy wax prix ñun duñ ci yokk un franc man du ma yokkal kenn mais est que li lay yéen dooleen ne non mu wax la benn prix nga ne non kii lii mën nga ci am nangam pour yéen yokk seen commission grand ah. man ban boro ban boro ah peut-être mu am ñu koy def mais. yow doo ko def weer bu jot bu ñu la fayee nga def sa poche non ma ci may fifteen ma la ma lay defal loolu. Ah. gënoo ma nag yow tam gënoo ma yaay nii papa. man ak yow yëpp yore kër te ñun ay commissionnaire lañu. sama commis parce que gis nga xaalis boo koy lekk li nga yóbbu sa njaboot day lew. ah d'accord waaw. Ngone. yéen yéenay ñiy wër. maanaam yeneen affaire yeneen ut location. Mm. ngeen di dem ci courtier comme ni ñu ko waxee. Mm. maanaam d' abord jafe-jafe bi ngeen di njëkk a rencontré ci courtier yi lan la. xam nga jafe-jafe bi njëkk a gis ci courtier yi mooy lan. waaw mooy tey jii bu ñu la waree wan kër. mën nañ jël benn kër gi wan ko ñetti nit. ñetti nit kooku ne la maa ngi ñëw léegi dem finaliser. Ah, waaw maa ngi ñëw finaliser wala mu nekk kër goo xam ne joxe nañ ko ba pare mais xam nga foofu lan la ñuy gis. Mm. ñeenti téeméeri. deux mille mooy lan mooy deux mille yi nga xam ne moom la ñuy laaj ñoom ku leen woon ne la kaay nga ma kii ya xamoo ndax nit ki bëgg na wala bëggul waaye dee da nga naan balaa ma déplacé damay laaj deux mille ñeenti téeméeri la ñuy benn kër mën nañ koo jël wan ko dix ma wan ko dix personnes ci ci ci kii bi ci journée bi daal di encaissé lool pour toog beneen bi mhm. mooy tey mhm. da ngay ñëw ci courtier nga ne ko damaa bëgg ne courtier bee nga dëkk parcel mhm. courtier bi ne la waaw sama benn booy bu dëkk Grand Dakar am na fii am na am benn néeg bu mool bu baax boo gisee kër gi moom macha allah nga daal di yàqam bi yàq nga ko mu ne gis nga ko mu ne gis na ko kër gi baax na nga dem fekk na kër goo xam ne teyoo da nga koy wax li ma bëgg dama naa kër gu baax laa bëgg bu calme sama budget temps la yem waaw léegi nag nga ànd ak ñoom ba foofu ñu waat la wan la ne kër goo xam ne yow daf lay leer na fii bëggoo fi dëkk wala kam fekk muy dajale ay bagage am di naa la non kii suba suba lay génn man def nañ ma ko fii Padois ma dem ba foofu fa bi naa ma tuxu ah ma de dañ ma ko wax ma woo booy courtier bi mu teg li woon naan non non non xam nga waa ji li ma wax xaaral eh xoolal saa waay est-ce que foofu la non du foofu mooy kër Demba noonu ci ginnaaw loolu pour lan la. <laughs> maa ngi maa ngi ñëw. Ah, Ngone <laughs> euh, ñaari question yu may rebondir ci lii Ngone laajte. Ah. maanaam ngeen jël benn kër wala appartement. maanaam won ko maanaam lu mat fukki nit. encaissé déplacement bi loolu mooy déplacement. du dëgg mm. beneen bi mooy ngeen maanaam wax nit ne ko. ah am na bés am na néeg sàngam bu nekk béréb sàngam te fekk yéen sax demagu leen fa ba xam état néeg bi na la mel est-ce que loolu am na ci liggéey bi wala amu ci. am na ci am na ci ñu mel noonu mais dama koy. tontu yow boo ko ci njëkk a wax. yow boo ko ci. waaw may ma non man du def yooyu man fu ma fu ma neex jaar nitu ñëpp laa. d'accord war nga ci xam dara. d'accord xam nga fu ma dama koy njëkk a tontu ci première question. benn benn néeg wala benn appartement ñu wan ko fukki nit. Hmm. man dama koy def. xam nga lu tax ah. de may ma xam nga lu tax ah uyu ma agence bi day joxe xaaruma man te man commission laay dundee ah. boroom kër ga bu gisee ku ñëw da ko koy jox ah. xaaruma man dama lay wax lu leer su ma la yóbboo danga may fay deux ma maanaam mooy déplacement may ma mooy déplacement bi su ma la yóbboo ay xaaral ma sama jëkkër ñëw suba ak gannaaw suba dugguma ci kuy wërsëgam nekk la boo paree nga jël boo parewul keneen ku ñëw ma yóbbuwaat ko fa bu ñuy génn nit ooma ma ne ko ñëwal maa ngi si angalu koñ bi bitig bi nekk ne ne la ne la ñëwal bul fàtte deux mille yi boo nee waaw boo ñëwee ma encaissé la wala ku njëkk a pari jën jeex na. waaw yaa am. waaw waaw d' accord Ngone may ma. dañ koy Ngone may ma may ko mu ko Ngone may ma ma ko waaw d' accord may ko mu daaneel. daaneel nga. ma reprendre beneen question. waaw Ablaye est ce que yéen parfois. Hmm. Euh, maanaam boo leen demee yóbbu nit. ci kër ne ko nañ dem woon la néeg wala kër ngeen dem fekk ñu ne ah agence ba joxe na ko wala borom kër gi joxe na ko hmm. est-ce que di ngeen ko yóbbuwaat feneen wala deux milliers moom niil na voilà tontuma ci loolu gis nga deux mille francs yooyu hmm. benn yoon nga koy fay dootoo ko fay ba keroog ngay am bu ñu demee tey fi ma la yóbbu même jëluñu ko arrangé wu la yow. waaw sa numéro téléphone a man bu ma gisee benn man dama yàkkamti amal la ba am sama commission def sam. non encaissé nga 2000 yi ba pare. non non nga maa ngi bokkul. waaw deux non ñu ngi ci déplacement. waaw 2000 yi mooy déplacement. waaw mooy déplacement bi bokkul ak commission. waaw 2000 boobu benn yoon la koy fay jeex na. numéro téléphone am a ngi si man fu ma gisee lu ko mun a arranger woo ko mu ñëw parce que commission bi mooy liggéey bi du deux mille yi deux mille yi ay crédit lañ koy def parce que ñun crédit la ñuy liggéeyee waaw mais mais attends attends attends euh, Ablaye maa ngi ñëw Ngoné maa ngi ñëw Ablaye Mbaye deux mille yi man dama jàpp ne déplacement la moom nañ ko tuddee bokk ci li ma dégg déplacement mooy nga jógee fii ngeen dem di ko woni loolu nag am na maanaam dugg ci oto wa maanaam luyee taxi wala ngeen dugg yéen a xam loolu wala mu sori man boog man. waaw boo gaaree avion def ma ci bala yóbbu. waaw da nga may fay deux mille yi. waaw waaw parce que deux mille yooyu ñun suñu liggéey la ñun suñu kii la bokk. waaw kooku ñun ñoo ko appliqué. d'accord dañ koy wax ak yow ba ba déggoo ko ndax amu fa. Hmm. dañ la koy wax bu la neexee ñu def bu la neexul ñu bàyyi donc ndax amu fa. waaw léegi bu laajee dugg oto na kan mooy fay. kan mooy paas yow yaay ja upp taxi ñu dem. <laughs> yaay say taxi bi. Ngone <laughs> maa ngi ñëw Ablaye. Ablaye yéen li ngeen bugg yomb na de. Ah, weesu na yomb. Ngone waaw waaw Ngone Ngone. wax nga ko sànq Ngone. Eh, doyen waaw d' man damaa maanaam laa. waaw gis nga 2000 boobu dem na ci bu ñu la wonee tey ji néeg bi wala hmm. appartement bi neexu la. bu subaa dañ naan la sama beneen copain moo ma appartement moom moo yor clé yi mhm. moom moo kii kiyam la léegi nag bu copain ba ñëwee léegi lu mu ko wax naan noo xam nga man ko joxoon démb kii sama copain la sama copain bi danga koy jox léegi nag si copain bi 2 millions yooyu muy jox copain bi moom da ciy amaat même bu nekkee problème encaissé na la ba pare du ko nangoo sax moom li mu koy moom danaan produit bii produit copain am la. Mhm. comprendre nga. Mhm. pour encaisser waat beneen 2000 bi mhm. ñoom 2000 yi tey jii dañ ko def xoolal mën nañ teg benn chambre boo xam ne. leer na ma ka ka joxe. comme ay le 29 wala le 30 kooku war a ñëw la 5 mais dañuy jàpp néeg boobu wala appartement ba def ko dóorukaay. tamit loolu pour lan la. Ablaye tontul ci loolu dëgg yàlla loolu ñaaw na. ñun <laughs> sax wàññi na ma barke Seydina moom la. <laughs> man xaw loolu du ma liggéeyee loolu. man déggoo ma ne la aw ma sens interdit fu ma neex dem. gis nga fi ma toog nii mun naa oo léegi ñoo xam ne dama leen loger na leen dépasse amaguma ko dañ ma naan booy ñibbi jaar fi ay télé écran plat yu doy nii frigo lu ne ci lii may liggéey si laa ko amee. ma waaw waaw. lu ne dama ko ci. waaw waaw léegi waaw waaw léegi yow xëj na uyu ma du du man du maanaam maanaam yow actuellement bon. xëy na bon ci ni nga waxee jàpp nañ la. nee nga yow loolu doo ko def. mais yaa ngi bokk ay courtier bu fekkee loolu am na nga ne carrément am na beneen bi est-ce que loolu amul. beneen bi mooy nee na. Ah. daf may fay déplacement. su ëllëgee ma woo ko na ko sama copain bee moo yore. sama copain man ku ma ko dafal man client bu ma dafal loolu manal sama copain bee moo yore. wallahi dama la naan 1000 francs nga koy jox sama 1000 man bàyyi ko parce que man ak moom ñoo ko bokk 1000 francs mooy lan ah yow tam dafa suukar suñu la woon. waa léegi Ablaye est-ce que par exemple. léeg man am na question boo xam ne dafa mel ni man dañ ko xaw a raay. wala ah, tout mooy hmm. mu ñëw nga ne ko jox ma 2000 ma yóbbu la maanaam. Hmm. béréb sàngam. Hmm, néeg nga fa. mais est-ce que léeg yow néeg boobu réellement yow teg nga ci sa bët. wala da ko dégg rek. est-ce que loolu duy arrivé nga toog rek dégg benn néeg rek nga ne ko nañ dem. fekk gisaguloo ko loolu am na wala amul. non dégg comment man borom kër yi dañ lay wax wala muy kër goo yàgg joxe. nga xam fan la Aziz kër koo yàgg a joxe bu fa nekk libre borom na la waaw waaw mais Ablaye Ablaye xam nga néeg tamit mun nga fa dëkk joxe ko ka fa nekk yaa ko logé mu toog fa ay ñeenti at juróomi at hmm, mais bu génnee néeg bi peut-être mën na changé am lu fa changé peintirab boo joxe ab borom kër ñi ñeen ñi am nañ moyen peintirab hmm. ñi amul moyen boo leen joxee avance dina la da ngay suba ma au peintir kan du mu hmm. peintir d'accord Ngoné Ablaye defe naa ne suma question bi tontu ci bu baax li ma li ma man li maa ngi ñëw tey li ma koy laaj ne ko xëy na moom courtier la joxe na néeg néeg boobu am na ku génn borom kër gi woo ko ne ko kan fi indi woon dem na utal ma keneen mais ngoone moom ma ngay proposé néeg bi xëy na kër ga entre temps bari na ay nit te buggul kër gu bari nit est-ce que yow loolu waroo dem ba assurer ko ba pare xam ko mu wóor nga ne ko ah kër ga kat néeg nanga moo fa nekk mais kër ga franchement dafa bari nit te yow genre boobu genre boobu bugguloo ko est ce que ngay wax tey ji booy ñëw ci ci ci courtier di wut ku ci nekk mhm. day ñëw ne lan man mhm. damaa bëgg kat néeg laa bëgg mhm. néeg néeg bu la ne néegu vingt cinq mille laa wax ci biir Parcelles Assainies laa ko bëgg wala nga ne néegu vingt cinq mille ci biir Grand Dakar laa ko bëgg waaye damaa bëgg kër gu calme kër bu baax yow mi courtier bi nga xam ne ne biir Grand Dakar wala biir parcelle munoo si am ci courtier bi ni ci ne la cliente bi waxee ne la néeg bi mu bëgg léegi yow sa méeka nga ne ko yow ak ak euh, ak sa sa budget bi nga yor ak yow li ngay proposé loolu mënoo ko am waaye dañ naan déedéet garaawul léegi nañ dem fee am na benn néeg boo xam ne nangam naa wan la kër goo xam ne macha allah yama yàlla jégalu ci ci wax ji boo yeggee sax kër gaa ngay waaj wala boo yeggee ña ngay weer ña ngay def ña ngay def na le du kii ñu ci dëkk mais ku ci nekk ak li nga li la li la mm-hmm. arrangé mm-hmm. am na kër ñoo xam ne ay kër njaboot la mais ki la wax ne na man lii la wax li mu bëgg ki la wax li laa bëgg boo ko amul nga ne ko amul loolu kër bu chic laa bëgg wala appartement damaa bëgg appartement nangam ak nangam mais déedéet ñoom li ñuy gis rek mooy déplacement ba kër gi baax na nga ne ko baax na ma ne saa waay kër gi boo ci dugg yee fii ki ma fa yóbbu woon hmm. xoola dafa dëkk dëkk dëkk étudiante la woon d'accord maa ngi ñëw kër ga rafet na set na douce nga fekk nag waaw maa ngi ñëw bon Ablaye Mbaye maa ngi ñëw Ablaye léegi yow dem ngeen maanaam euh, lu luyee nga nit maanaam wala léeg-léeg est-ce que doo leen am ay maanaam déception aussi ci ñi ngeen utal néeg parce que nit ñëw ne la ba aw ma njaboot man kenn la wala man sama benn doom la wala sama benn xarit nga dem fexe ba convaincre borom kër gi wax ko loolu moom mu ñëw indi fukki nit borom kër gi woo la ne la waxoo moon lii est-ce que yow doo li mu wax léegi. waaw mais li mu wax après nga tontu ko ma tontu la ci biir xam léegi dafa am. lu mu wax moom li muy wax ni man dama def ni day éventé di wax rek grand. éventé barke sëñ Touba man tuxuloog mi nga xam mais kon da nga ñàkk fayda waaw man nga ne ma am naa kër gu rafet waaw kër gi nii la mel bëriwul nit sàngam nàngam ma war la jox deux ñu dem ba foofu gisuma lool du ma la jox sama deux mille bu waaye bu dee man damay écarté waaye am na ñoo na ñoo xam ne duñ ko def waaw waaw léegi ci problème bi bi leen bi maa ngi ñëw gone gone maa ngi ñëw waaw léegi léegi uy ma Ablaye du ma la jox sama deux mille Ablaye waaw dama bëgg nga tontu ma ci maa ngi ñëw maa ngi ñëw léegi 2000 dañ koy dépassé léegi nag léeg-léeg aussi dañ leen di trahir yéen mm. parce que trahir laa wax parce que tey ngoone ñëw ne la man ak sama benn doom la wala man ak sama benn copine wala man kese la ñëw fa indaale fukki nit borom kër ga woo la ne la waxuma la woon lii waxuma woon lii est-ce que problème boobu doo ko am loolu laa bëgg nga tontu ci très bien yaa ngi doog a ñëw gis nga ñun nag ni ngeen ñuy noonu lan leen di ŋawti ŋawtee yéen client yi <laughs> client dina la jël waaw xoolal gaare oto bu rafet. waaw ne la nañ dem ma xool appartement bi ngeen dem xool mu nice. Mhm. nga dem ba si borom kër gi ngeen toog waxtaan mu ne suba damay ñëw. xam nga li ma nga toog di ko xaar mu oola booy foofu daal sama jabar nee ne nii ak nii sa gannaaw ëllëg sa wala nga dem fa di yóbbu keneen mu borom kër gi ne la sa waa ji nga fa indi woon xanaa woowu la ñëw na fi ba joxe avance bi mhm. boo ko ëwee mu la naan. mu lay làkk yu làkk yoo xam ne doo su waaw mooy ku mooy ku jël te jaarul ci yow rek ah? loolu moom di ngeen ko dund ah, maanaam ko ko fa yóbbu mu jaar suuf jël ko góor di jigéen di yore famille ak petit famille ci yem dañ la naan man la ñaar ñaar la ñu wala nii nga nga loger leen ñu ñëw nekk teew loolu ngay wax boroom kër gi loolu mais dañuy toog ah, borom kër gi day toog nga toog ki ñaanam mhm. bi toog ngeen wax boroom kër gi dégg ba d'accord mhm. mu joxe avancé am jox la sa commission deux jours après borom kër gi oo la ne la ñuy bantañ juróom ci néeg bi am bagage. dëgg la am nga nga dañ cee am problème. waaw borom kër gi daanaan ñëwal ma loo ko avancé bi kii du fi dëkk. waaw dama jox sama caabi yow lekk nga commission ba ba pare. <laughs> ñu la naan léegi man man moom yooyu jaaxalu ma sax parce que man commission duma ma ko gox. parce que su ma koy lekk dama koy lekk ci lu leer nañ. Mhm. foo ma ci woo ma wuy la. Ngode. laal nañ point point bu am solo yéen tamit locataires yi. yu mel ni man bokk. waaw ñëw. déclaré ne maa ngi ñëw rek non àggaguñ foofu déclaré ne man kese la wala man sama benn doom wala man kenn du ma seet si mais nga toog fa vraiment kër ga mel ne tout la nga waxoon courtier ba tamit ba courtier ba wax ko borom kër gi tamit respecté wuloo ko ñu waxee nga naan damay fay sama xaaj est-ce que loolu tamit yéen tamit du yoon xam nga loolu dafa am ci lu am na ci ñoo xam ne noonu la def dañuy ñëw nekk benn dix personnes am na ñoo xam ne duñ ko wax courtier bi te duñ ko wax borom kër gi mhm. mooy lu seen problème da xam nañ ne génnee locataire du noonu te dañuy xam li nga xam ne lu ci yoon wax mais dañuy def lu leen neex ndax xam nga doo dajji néegu kenn du ko génnee mhm. mais am na ci ñoo xam ne tamit courtier bi dañ leen koy wax mhm. am na ñoo xam ne ñaan ku bi mooy c'est que man damaa am njaboot sama doom yi nangam man naa nangam léegi courtier bi day gis ne ne boo waxee boroom kër gi loolu amaana caution bi du ci jot te moom fekk na néeg bi yàgg na fa wala yeneen moroomu courtier am gis nañ ko te day njëkkante la parce que tey benn chambre bu nekkee géejawaay yàppal ne la courtier yu nekk ba Medina xam nañ ko ndax léegi nag par téléphone la ñuy liggéey balaa mu ne balaa keneen di ci jaar non yaa ngi ree xam nga ne man xam naa leen dégg nga léegi nag dañu ne léegi client bi nga xam ne dafa bëri ay doom te taxaw na benn soixante quinze mille bi ngi niy taxaw cinquante mille la borom kër gi moom vingt cinq mille maa ko moom du ma nelaw du ma doon wayaa wayaa waay lii di juróomi junni di ma romb dañ naan borom kër gi nag xoolal kii sama sista la ku baax la yàgg naa koo luwee nit ku baax la amul benn problème fekk xamu ko femme bi marché asalam lay jaayee wala marché géej waay la nekk xamul lu dul daan dooleem macha allah nekk femme ba nag yor na na conteneur ay doom bu yeewoo yaay yaa jaaj yuuxoo ci biir kër gi boroom kër gi yeewu guddi ga ñuy tuxu sax lay commencé gis tuxu si gis njaboot geen ñooñ muy xalaat ne ñoon non ñii dañ koy jàppale wala ñii fii lañ dëkk ba mu yeewoo xale ya jàllaa ñoo ñu wala nga naan ah femme bi kon noonu la demee noonu non comprendre ko xaaral pourtant saa waay woo na ma yow xoolal di jël teetu ko bu la femme beeg du la woowoon sax d'accord maa ngi ñëw Ablaye Mbaye yéen ñi ngeen xam ne yenee intermédiaire maanaam borom kër yi xamuñu ñi joxagul parce que nit ki bala nga ko xam il faut nga jox ko ba mais yéen ñi nga xam yéen am ngeen relation ak borom kër yi mais yéen tamit est-ce que balaa ngeen di booleeg nit di ko yóbbu kër jàmbur mais au moins doo xam kii maanaam situation famille xam dara ci moom moo gën ngeen ñëw rek naan kii nii la mel nii la mel fekk la ngeen wax dara wóoru leen ci aussi tamit est-ce que problème ko xoolaat li mu wax dama ko weddi Ah, am foo dem am na ñu bon am na ñu baax loolu noonu mu wax noonu. da lu nekk waaw waaw d'accord ci milieu bi waaw waaw ci milieu bi ci milieu bi waaw. acca donc loolu am na. am na waaw léegi ñu ñëw ci beneen côté. mais foo dem am na ñu baax am na ñu bon. d'accord léegi léegi Ablaye ñu ngi ci. may ma tuuti may ma <laughs> tuuti mais loolu loolu may ma tuuti loolu courtier bu ko def borom kër gi borom kër gi day pare ci yow. doo dara dootul. dootul maanaam doo ko wax dara ba mu gëm ko ba mu gëm ko. yàqu la nga foofu. très bien waaw mais kon amul sens. mais Ablaye est-ce que yow ñi ngay ñi ngay utal kër wala néeg yëpp est-ce que xam nga leen au fond. loolu mënul nag. maanaam xam dara ci ñoom au moins quoi. waaw non mënul nag. Hmm. ñun da ngay jékki rek kenn ñëw boo ñëwoon la man na commissaire de police bu ñëwee gaare sax laaj na ma yóbbu ko avocat bi noonu jaakatu marché bi noonu. si am solo mooy naa la wan borom kër gi toog nga toog ma toog. ngeen expliqué yéen ñaar boo leen déggooyee ngeen finalisé la ma moom ma def sama poste dem. jeex na kon nañ ñëw maa ngi ñëw nañ ñëw ci li nga moom. parce que yow def naa ne. yow dafa mel li la intéresse mooy xaalis bi moo la intéresse leneen intéresse wul non mais si si maa ngi ñëw. parce que man defe naa aussi war nga sàmm sa diggante waaw maa ngi ñëw rek war nga sàmm sa diggante ak borom kër gi sàmm sa diggante aussi ak ki nga xam moom ngay boole pour ëllëg si biir bu amatee mu ñëw ci yow mhm. borom kër gi tamit boo ko indilee nii mu óolu ko bon ma ñëw men naa ci avance parce que bu ma jàppee ñetti weer la ñuy laaj mhm. ah, benn mois avance benn mois caution ak benn mois commission commission boobu fan la jëm ah lépp dañ trian amu fa ba tey. waxuma da ngeen trian de dama la laaj commission fu mu jëm suñu poste la jëm ah. waaw may ma troisième mois seen poste la jëm waaw waaw may ma Aziz waaw mais loolu trian amu fa nax amu fa. non waxuma nax la waaw may ma waxuma ko waaw toog waxtaane ko mu jaral la nga naa ok ñu def am na ñoo xamee ne dañ lay fay troisième mois ya lambaat seen poste may la barke alxuraan. dëgg la parce que dañu sonn yàgg nañ ko. dëgg la booy bu lii réglé man maa la dig lii dama la koy jox. donc dégg ko ba taay encaissé naa ci ba taay. donc donc donc meluñu ni yow. uy ma appartement bi bu fekkee cent mille la. trois cent mille la waa ji teg ci taabal benn mois avance. benn mois caution ak benn mois commission commission bi courtier moo ko moom. ngoone. xam nga loolu ngeen di daj. xam nga xam nga ne xam nga ne doy loolu lañ loolu la ñuy daj de. waaw lool la ñuy daj waaye te loolu nag fan lañ ko teg. waaw ci ay troisième mois bu njëkk ba sax da daan gis sax. Hmm. courtier bi ne jox ma moitié moitié bi sax da nga daan jox mais léegi dañuy dem ba nga xam ne ne ñetti weer yi. Hmm. waxuma la sax ndax. lee sa xaalis la lee sa xaalis la yaa koy tëdd euh, avance la. ak kii nga xam ne ne mooy caution. te loolu noonu sa xaalis na mais bi nga xam ne ne troisième mois bi nga xam ne dañ koo jël laxas ci jaan tamit loolu pour lan la mais commission la commission la aussi mais commission la mais commission la 3 mois buy dem loolu dafa bëri. ah waaw commission la mooy seen liggéey waroon nañ ci ko wax waaw mais ngoone ko fenn. commission ah, ah. commission. kay xanaa ba utalee nit appartement. Ah. bu 200 bu joxee 400 000 xanaa benn 50 000 doy na. wala 25 000 yow sa salaire buñ la ko gaaw buñ la noonu dañ koy doo. <laughs> boo ko joxoon tey laay mbay tey. waaw wala nga jox ko man waaw jox ko laay mbay parce que moom laay jël ko exemple. man de boolewuma maa ngi ñëw waaw mm. nga jox ko ko ne ko ne ko portable bi cent mille francs laa koy jaayee je donne un exemple. mooy la boo ko jaayee cent mille francs day vingt cinq mille francs yi man maa ko jël commission. Mm-hmm. mais est-ce que loolu amu ci droit parce que moom tamit mooy dem lijjanti ji. mooy dox. mooy jaay te bu fekkee ne problème am na moom dañ koy woo. donc est-ce que loolu c'est pas légitime. waaw déglu ma waaye man 100000 dama ko dul jox benn courtier. maa ngi ci télé bi laax ñëpp xam nañ ma damay raag ba dugg bu avocat. Mm. boo ma wanee kër gi ne ma tii temps temps la. Mm. lii laa war a jox bu ma demee damay wax ak borom kër gi. Ah. bu ma waxee ak borom gi ba pare boo ma woowee téléphone du ma lekk sa àq. sa àq duma ko lekk boo waxee naa ma ay 3 mois wala 4 mois dama naan patt. bu ma yeggee ba yëkkati borom kër ba mu jeex ma jox la benn cinquante mille wala benn. waaw mais mais mais Ngone Ngone Ngone. ne dama ne. waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw dama ne dama ne. waaw dama ne non dama ne dama ne. dañ koo signé contrat. waaw déglu rek non non non attends attends attends déglu ma jàpp nit ki tamit boo ñëwee wax ko soxla. parce que da nga jaaxle. fa nga nekkoon xat na wala nekkatuloo fa en tout cas jaaxle nga daal. Hmm. nga ñëw wax ko mu ne la ah condition yi kat kër gi lii lañ koy loué appartement bi lii lañ koy loué hmm. ba nga ne ko d'accord wax dëgg yàlla war nga mun a tamit la nga d'accord moom nga yëkkati ko toog ko waaye waaye troisième troisième mois non trois mois quatre mois moo ci yem oh, boo ko d'accord non dama ne dama ne nit ki quatre mois trois ci yem bu fekkee da nga waxanteeg moom. ba d' accord loolu dang waa léegi waxanteeg moom ba war nga ko jox. ba nga waxanteeg ñoom ba d' accord nga lan diggante. client yi mais loolu du wor. dama lay laaj diggante client yi xoolal la wax dëgg la. tolloon ja waaye diggante client yi ak courtier yi. Hmm. carte bande la agence immobilier trois mois la. la la agence immobilier nga la hmm. moo tax nga la moo tax nga dóor nga la astaghfirullah parce que la laa wax tey jii loo xam na tey jii ci biir kër gi xala mën nañ laa wax loo xam na ci biir kër gi tey jii amul hmm. nga daal di koy jël wax ko comme man fi ma dëkk nii am na suppresseur ndox bi day yéeg patati patata kutte ba wax jaay la lamine bu neex wax boo baay borom kër non non bu la ko waxee non boo ko waxee xam nga yow boo nee nit bu la waxee nan am na ndox nga ne waaw kon yow boo yeggee pour man ci sa xel bu gaat waaye ku ci mel na man xam nga dangay ngay lijjanti ba nga leer mais parfois di nga yàqamti yàqamti boo xam ne bu la courtier bi waxee ak ak ni nga koy gisee wóolu ko waaw waaw ma ñëw ñu may def Ablaye nii def jas neeram bu neex nekk te yow door na la waaw maa ngi ñëw Ablaye Ablaye Mbaye léegi dafa am benn point bu am solo tamit maanaam trois mois yooyu ñu joxe laajte nee nañ benn mois avance benn mois caution benn mois commission caution bi ci laay taxaw caution bi ci laay taxaw caution boobu su ma jàngatee contrat yi dañ ne caution la maanaam dañ la ko fay dencal. waaw bu fekkee da ngay génn. boo fa bàyyee boru courant ndoxu courant. Euh, bu facture courant wala bu ndox au moins ñu génne ko ci jox la li si wala nga yàq fa dara. Mm-hmm. mais est-ce que yéen ak boroom kër yi. Mm-hmm. locataire bi su demee bay génn maanaam tëdd na weeram war a génn est-ce que loo caution boobu di ngeen ko ko delloo wala ngeen génne ci la ngeen ci war a génne maanaam yéen ak borom kër yi ngeen nekk ah maa ko fi liyoon kat caution bi léeg-léeg na delloo ko caution est-ce que léeg-léeg di ngeen ko dox. non man damay def loolu. man moom borom kër yi. di nga ñëw ne ko mu delloo caution bu dee tala la bu dee ñu may dégg nañ ma dégg bu baax man damay def loolu. ñëw ne ko da ko delloo caution man locataire bu ma yóbbu luye la. waaw boo amee problème ak borom kër gi boo ñëwee wax ma damay sol sama dàll. waaw mun naa chuter sax ay tur ñu may dégg ci interdit fii. dëgg la waaw jarul. waaw jarul loolu. dëgg la ay borom kër la ñu. xam nga li ma man. borom maanaam leneen nga défendre aussi tamit client bi jengee damay ñëw na ko yaa jeng nii la. client bi bu jengee parce que man damay xeex. man moom dama tàng. damay xeex te te client bi. Ngone waaw maa ngi ñëw. client bi waaw maa ngi ñëw client tax may ñàkk sama produit ba la de. la boo d'accord ne dama maa ngi ñëw Ngone. Ngone maa waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw. nañ taxaw ci caution bi. waaw li dama ne bi gis nga à part à part est-ce que yow yow yow dama ne est-ce que maanaam caution delloo nañ la ko fi maanaam te lañ la waxoon au départ ne la booy génn. caution bi dañ la ko a delloo xoolal loolu laa bëgg nga leer euh, pour caution boobu ñu lay wax ne dañ la koy delloo caution bi duñ la ko duñ la ko delloo. pare yenn saa yi booy. pourquoi dugg ci kër gi sax. Hmm. duñ la pentiral dañ naa la noo te ñun duñu peinture booy ñëw fi ak. mais nag boo ne boo jëlee kër peinture ko nga dugg accepté fa dugg noonu yow la. bu fekkoon da nga ñëw taxaw ne ko. bala maa ngi ñëw rek xam nga tamit nañ waxan dëgg hmm. lii boo ma ko doon jaay tey ma xam état bi mu nekk ma jënd ko noonu man dégagé nga sa responsable mais bul ma dig du dëgg mm-hmm. donc tey boo ñëwee xool ne ko peinture bi kat neexuma mais boo ko peinture lu ma ci dugg am nga ci droit mais bu la tamit xëy na moom bu ko defoon tamit yow yaa ko bu bees boo xam ne xam kër goo xam ne da nga dëkk njabootoo boo fa defoon deux ans sax mën bi du yàqu mais dama ne la comme yu bees hmm. ak yooyu ndax nit ki balaa ngaa jël kër dinañ ñëw def état de lieu bi mais parfois duñ la peintural ci bii dëkk boobu nga fay dëkk ba war a tuxu benn deux ans wala benn un an boo fay def dañ naan la non pour joxe caution bi foo dégg ñu naan la non loke bi fii fii xoosu na tey ji boo moo dégg kon daal duñ la delloo ba pare ah, ci ci courtier yi tamit dama ne boo leen woowee mhm. wax leen ne ne tey jii kër gi damaa bëgg a tuxu ah grave kontaan nañu hmm. xama lañ lay wax xoolal hmm. kër googu foofu nga nekk noonu dañ koy gën a sikkal na waay paa bi dafa doy waar xoolal am naa kër gu bees tàq xam nga boobu après lan gis hmm. fu toll ni benn commission génn nga dañuy indi keneen maanaam ñu ngay préparé ba pare ak ah. fa lay dugalaat ah, mais c'est normal aussi boo génnee kañ ne la xaaral comme borom kër gi kii sama jigéen la kat yow tamit kii sama waay nga yàgg nga maa woo ma lay wutal ay client nañu dox léegi nañu waxtaan ci biir waxtaan bi ngeen jéem a déggoo wala nga jox ko jox ko le déedéet lu ñu gën a intéresse kër goo nga jógee dañ koy yàq ba mu yàq am na keneen ku ñu woo saa waay am naa fi chambre bu baax yaa ngi fàtte kër ba Paate bi laay femme bi fa dëkkoon day génn d'accord léegi ñi ngi lijjanti loolu bëgg la yóbbuwaat feneen fi ñuy daanale parce que ñu ngi may jox si ñu ngi may def si ne ma temps bi mhm. temps bi jeex na xam naa ne lii moom <laughs> lu ñuy war a continuer waat la. Euh, man looy looy looy looy looy tàggatoo. ah di leen sant di leen gërëm. Mm-hmm. waaw maanaam ban appelle ngay lancé ñi nga xam ne dañuy maanaam borom kër yi parce que dañ ñëw ci borom kër yi nga xam ne ni dañ naan la géndal ba pare yokkaat ko waaw jéem a teg affaire bi ci yoon ndax yéen a ngi dégg li ndaw si di wax <laughs> amul amul yëre bu ma solol ngeen dimbali ñu jéem koo teg ci yoon man day sama ñaari loxo ci kaw hmm. amul kenn ku mun a taxaw wax ne Ablaye Mbaye nii wala. d' accord loolu appel la booy lancé sa bokk courtier yi. maintenant locataires yi ñëw ci yoon ak ban appel nga leen di ah ñoom tamit ñëw di leen nëbb seen bopp. waaw nga jël engagement ñu war la. est ce que loolu mun waaw waaw loolu bu ma sañoon man ku ma yóbbu ci kër. heure bu ma dajeeg borom kër gi mun a ma kër ma indil de. exemple la waaw. macha allah mais yóbbu la si kër ñaar weer. ñett weer dootoo fayet am na ñoo am fu ñu joxee avance fa la ñuy gëjee fay <laughs> def ci kër gi un an wala deux ans doo du ñu fay parce que dugg ci kër location xam nga nu mel mu ngi mel ni nga teg kayit ci buntu kàmb gi. waaw ngelaw ëf ko mu dugg ci ngelaw la koy génnee ak ba ko ëf du doon la waaw. waaw donc loolu ngay tàggoo. Mm-hmm. jërëjëf euh, Ngoné looy tàggoo. waaw loolu dëgg la doyen di ko wax ndax ñun ñëpp ñoo bokk ndax ku amagul kër da ngay wër di luyee. Ah, ñun ñëpp ñoo yem. <laughs> macha allah ñun tamit dañuy jàppante ñi nga xam ne ñoom ñooy luyee ak borom kër yi ak ñi nga xam ne ñooy courtier yi dafa am ci côté ñi nga xam ne dañuy ñëw wër loola ba nga sonn te jëluñu borom kër yi nga xam ne dañu defal seen kër ak courtier yi nga xam ne ne macha allah ñoom 2000 bi ngi leen di jox wala dara moo leen intéressé kon nag ku ko ñun ñett ñun ñoo bokk liggéey bi kon li may ñaan rek mooy ku ci nekk lu ngay jóg di ko def rek na dëggu macha allah ab Ablaye kontaan naa nag mais waxuma pour yow kese dafa am courtier ñu ko mel parce que man dama yàgg raag daal dangay dem ñu joxoñ la kër gi ne kër gee la nga ne kër gee ma sumb samay daal nga wañ ma ma ne la doo encaissé non non macha allah jeex na waaw <laughs> euh, kontaan naa jërëjëf mbokku téléspectateurs yi thème bii lañ leen indil d'abord pour une première partie wax naa ko danañ ko continuer maintenant parce que dégg nga borom kër yi tamit dañu ñëw toog fi ñoom tamit ñu interpeller leen ci affaire luwaas yi mhm. parce que ñëpp xam nañ ne euh, ba ñu wàññee ba léegi nit ñi amuñ jàmm dafa mel ni luwaas léegi la gën a yokk parce que da borom kër gu ñëw ne la sama njaboot day dëkk wala damay defaraat nga génn léeg sax du peinture mu ñëw yokkaat ko. Mhm. loolu dinañ ci taaj boroom kër gi. du dëgg euh, donc defe naa ne muy question boo xam ne nii tey euh, ñoom ñaar ñi ko seq gis ngeen tey et pourtant kii ut ak ki nga xam daf koy dimbali mu utal ko war nañ mun a maanaam juboo mais dafa mel ni tey ci biir wax ji gis ngeen maanaam confrontation bi conflit d'intérêt am na te pourtant ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg parce que olof Njaay def ne kii wut fu mu fanaan ak ki bëgg ko ko wéttali tëjal néeg bi waru leen a boole waaye dafa mel ni ci tëjum néeg boobu ñoom ñaar ñëpp vraiment fa la ñuy fanta siro <laughs> en tout cas ñu ngi leen di jox euh, rendez-vous euh, maanaam ci deuxième partie bi nga xam ne ni dañ koy consacrer maintenant boroom kër yi euh, di maanaam nuyu ñi ñu doon seetaan téléspectateurs et internautes yi di gërëm aussi suñu caméraman yi ñoom Pape Diagne ñoom mbay ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu ak Youssouf di gërëm aussi euh, Saliou Samb qui nous a aidé pour la réalisation de cette émission Sarata aussi Fat maa ngi koy moom tamit defal une mention particulière pour son assistance on vous donne rendez-vous euh, la prochaine fois pour la deuxième partie de cette émission consacrée à la location merci